bari kii sama doomu xol la papaam dafa nekkoon sama wóllare te Youssou Dieng xam na ci dara saa yu ma déggee mu ngi tëgg Paris damay daw fekke ko am na ci concert boo xam ne nii Youssou Dieng mii moo ma jëndal billet des yëpp pour ma jox waa Médina yi nekk Paris kii jàpp leen ni sama doom la doom moo tax ma ni ko damaa bëgg a def anniversaire mu ni ma papa dooma fay wutal loo jox xale yi musiciens yi transport waale fayu ko mu ngi nii billaay dafa ni ma wutal loo jox musiciens yi transport duma la fayee ko kon tàcc leen ma waale doomu Médina ñi nga xam ni dañoo jëriñ Médina ñoom ñëpp nag dañ leen di delloo njukkal te ci doomu Médina yooyu tuddee nañu Alaaji Mansour tuddee Vieux Seng tuddee Doudou Ndiaye Rose mais tey Youssou Ndour ñu def ko maire honoraire bu Médina kon jaadu na Thione Ballago Seck fekk na ma fu nekk ci Médina photo bi ma leen di woon sama bureau la ñëw fekk ñuy génn mu jël casquette Médina sol dinaa la yónnee foto bi casquette Médina la Thione Ballago sol te gis ngeen ko ba tàyyi fu chantier am ba ci réussite la mujjee jëw bi ma koy mujjee gis mooy bi Assane Ndiaye def anniversaire te nga ñëwoon ci vidéo baa ngi fi dafa ñëwoon Bamba waroon na maa xaar ndax zéro faute ndax maa ko bëggal sama bopp kon Wally Ballago Seck ñun waa Médina kii sunu doom la kii lu mu bëgg nañ ko ko defal kii fu mu ne nañ ko fa fekk man bis ni ki tey xam leen ni fépp fu Wally taxaw dinaa fa taxaw te Médina day nekk baasam Médina day nekk dooleem waale famille Médina maay nekk pareem incha allah kon boo gërëm na ñëpp sant naa ñëpp baan jërëjëf Médina ci xool jërëjëf Nouvelle Vision jërëjëf mouvement jigéen ñëpp ak agent yi délégué de quartier jërëjëf vive la Médina vive la République jàmm ci ñëpp vive Wally Ballago Seck merci salaamaaleykum waa Medina yëpp nañu sifle gâteau bi ñëpp àndandoo